Monsieur le maire Lamine Diallo, maire bu commune Thiès Nord mais également responsable euh, départemental bu parti Rewmi fii ci biir euh, Thiès tey ñu ngi ci débat en ligne monsieur le maire ñu bëgg d'abord nga nuyu ak mbokk yi de seetaan ci actuthies.com. Euh, jërëjëf monsieur Sarr donc maa ngi profité occasion bu ma may pour nuyu Euh, population Thiès yëpp particulièrement celle euh, de la commune de Thiès Nord. voilà monsieur maire tey bu ñuy ñëw coow bi moom moo doon politique élection municipale mu mel ni report am na ginnaaw bi nga xamante ne am na consensus ci élection directe le maire euh, au suffrage direct tey ban appréciation ngeen ci en tant que maire. waaw ñun amuñu ci appréciation bu. particulière parce que déjà ñu maire lañu cinq ans lañu faloon cinq ans la jëlaat suñu mandat soumettre ko à l'appréciation des populations ndax ñoom doyal nañ si ñuy liggéey wala euh, quand même euh, gis nañ ay insuffisance ba war na so mais li nga xam ne moom moo xew euh, du volonté maire yi je crois que c'est c'est un contexte politique y a dialogue politique donc nee nañu parce que lu ñu jàpp au sortir de l'élection présidentielle gis nañu le fichier c'est un fichier biaisé kenn mënu si dem élection donc jaadu nañu toog càmbar no loolu nag peut-être que moo indi euh, moo impacté un peu le calendrier mais ñun en tant que maire pare woon nañu pour le mois de décembre pour ñu dem élection parce que nag euh, dañoo war a mën a respecter le calendrier républicain nit ki boo ko falee juróomi at bu juróomi at yi jeexee dafa war a mën a ñu nga xam ni ñoom ñoo ko dénkoon mu dellu si ñoom ñoom bu leen bu fekkee ni nag ñoom bëggaat nañu mu toogaat mu toogaat mu bëggaatul mu toogaat mu jóge fa keneen ñun lu man gis-gis boobu laa donc lii du lu nga xam ne la euh, ñun ñoo ko imposé donc euh, déjà euh, loi la bu dal suñu kaw bu ñu def lu accepté mais du wax rek ñun préwoon nañu dès le mois de décembre pour se soumettre à la sanction populaire que ce soit positif ou négatif parce que pare nañu donc léegi reporté nañu mais ba léegi aussi retiré bu mu date donc loolu aussi beneen problème la parce que duñu ba léegi parce que boo yoree mandat il faut rapidement nga xam kañ day jeex donc lu ñuy sàmm mooy ñu déjà rapidement bu ñu defee report bi ñu xamal euh, askan bi xamal les les collectivités locales que kañuñ la prochaine élection locale parce que loolu dafa am solo mais lu may jàpp rek mooy que. Euh, bu ñu waxantee dëgg mooy juróomi at lañu faloon te juróomi at yi bu jeexoon dañoo waroon demaat ci askan bi xool ndax ñoom dayoon lu ñu liggéey baax na bu baaxee ñu reconduire bu baaxul aussi ñu remercier ñu ñu def defi leneen. alors monsieur le maire lu euh, ginnaaw loolu bu dee élection amatul xam naa dañ ko dàkk bu ñu ko dàkkee day nekk loo xamante ne dañ di profiter. waaw xam nga bi ñàkk pexe la man nga xam ni la lu ñu maanaam luñ ci lu ñu ci saxoo wala lii parce que comme lu wax. on est des républicains jusqu'au des ongles mooy réew dafa am lu nga xam ne moom la ñu wax le calendrier républicain ñi nga xam ne moom la ñuy dénk baaru askan yi dafa am si période bi nga xam ni moom la ñuy yor baaru askan bi bu période boobu jeexee normalement war nañoo delluwaat si askan boobu dénkoon leen ñu xool ndax seen liggéey ñoom na wala ñoom man loolu laa gëm mais lu nga xam ni la tey waroon naa dem élection 2000 euh, décembre dew ma ma ne ah amaat naa sens dinaa parce que quand même pouvoir pouvoir bi sacerdoce ba liggéeyal askan gi la kon à chaque fois jaadu na pour nga delluwaat ci askan boobu xool sa bopp ndax ñoom ñu ngi apprécier say action déet wala waaw. alors euh, monsieur maire tey ci ginnaaw kàddu yooyu tey monsieur le maire yéen naka ngeen di jàngatee rek li nga xamante ne euh, tey moom mooy wax coowul troisième mandat fii ci biir euh, Sénégal. waa xam nga coowul troisième mandat dama koy wax ñëpp ñu ngi si mos dama ne leen du affaire constitution affaire nit ki la ak bëgg nit ki la si d'abord mooy Macky Sall président Macky Sall ndaxte ñëpp parce que nag le l'histoire est récente 2011 gisoon nañu ni taxawaay bu ma amoon à la place de bi pour xeex troisième mandat kooku yàlla def tey jotee réew mi dem indiwaat beneen constitution après le vote de se référendum mu wax carrément ni mandat septembre moo doon premier mandat et que yàlla bu ko jafee moom 2019 mu amaat beneen mandat boobu mooy nekk léegi nag kooku mbirum nit ki la mbirum conscient la c'est vrai waxuma Macky Sall jàpp euh, kenn mënu see dóor sa doom donc suñu suñu leader président Idrissa Seck day wax ni ma waxu Macky Sall day da koo jiw laal kenn mënu see jëm mais damay wax ni rek euh, même bu fekkee règle bi c'est Macky Sall mooy wax lu mu dul def mais dans chaque dans toute règle war na mu dem exception. je crois que bii waxam bi mu ne moom mi ngi ci deuxième mi ngi si second mandat je crois que ce sera une règle bi nga xam ne dina ko respecter kooku donc c'est une question d'homme et de conscience beneen bi aussi mooy bëgg sa réew tey lan moo ko fi jar pouvoir jël ko te gis nañu ni en 2011 pour laa lutte contre le troisième mandat dee yu am réew mi jafe-jafe yi nga xam ni si la nekkoon daaneel économique ba mu nekk si vrai maanaam taux de croissance bi pratiquement c' était nul 1,5 la woon donc tey c' est un pays en construction tension sociale yooyu moor yooyu war a mën a am jëru ko te damay wax ni euh, président Macky Sall bu fekkee ni ñu ko wër jay nañ ko ba mu bëgg koo lu am Wade di gisoon moom dina gis lu ko yéem parce que nag ba mu yoree réew mi ba fu ñu toll juróom-ñetti at eh, li nga xam ni mooy moom la ko Sénégal yi xaaroon maanaam lu bëri tey sénégalais yi tey lañu gën a sonn am nga jamonoy Abdoulaye Wade sax mënoon nañ ko am lu ñu na situation atténuante ndaxte xawoon naa neex mais réewu Macky moom dafa Macky totalement réew mi xam nga boo demee peuple bi nga xam ni c'est un peuple affamé fatigué peuple boobu pour un réel moom wax ci réalisation yi nga xam ne Macky def na ko. xam nga du réalisation xam nga réalisation tey da ngay jël secteur de l'éducation c'est un secteur à dama lay parce que mënoo jël les les les le taux de de réussite au bac vingt cinq pour cent soixante cinq pour cent d'échec ça veut dire que tey loolu rek déjà c'est ne échec patent téeméeri xale bu def bu terminaliste bu dem defi bac juróom benn fukk yi juróom dañuy laaj mais demal ci école primaire yi c'est des effectifs de quatre-vingts par par par classe des élèves sa mettent par quatre dans les classes. des écoles sans toilette des écoles yi nga xam ne ay abris provisoires 6000 abris provisoires ça si boo bëggee réew mu war a tabax réew mu war a am ëllëg foog éducation bi ba koy xoolee mais santé bi demal tous les hôpitaux régionaux sont des mouroirs boo demee suñu hôpital régional bii tey boo demee pédiatrie boo demee fu nekk c'est des mouroirs parce que euh, le plateau technique n'est pas relevé donc yooyu ñooñu def sénégal yi dañoo tolloon fu nga xam ni waroon nañu am jàng bu baax waroon nañu am paj bu baax waroon nañu am dund bu yomb waroon nañu mën a am fu ñuy dëkkuwaay mais demal si àll bi dëkkuwaay bu baax sax amuñu lu ma gën a lu nga xam ne moo gën a doy am na nga mënoo jël la région de Dakar bi nga xam ne tey réew mi boo ko jëlee euh, boo jëlee territoire réew mi euh, boo maanaam bu doon téeméer région moo Dakar mokkul sax benn benn maanaam 0,3 pour cent du territoire national xoolal tey investissement yu nga xam ni la région de Dakar taxte na mooy mooy terre bi 1200 milliards mooy centre Abdou Diouf mooy tey dèjà ñu ngi ñuy wax. bis bis rapide bi bi nga xam ni cent milliards mooy autoroute à péage mooy li nga xam ni xoolal milliards yu ñu engloutir sur le sur le sur l' assainissement pour la lutte contre les génération xoolal Dakar mais xoolal Diamniadio luñ fa war a investir. même aéroport bi sori c' est pratiquement dans la région de soriwul Dakar donc ima boo xoolee c' est plus de quatre mille cinq mille milliards yu nga xam ni ça tourne autour de la région de Dakar. dañ ko engloutir à Dakar dañ ko engloutir à Dakar loolu nag boo bëggee nii tey luñ fa te bàyyi bàyyi bàyyi bàyyi bàyyi bàyyi bàyyi Sénégal. des profondeurs c' est vrai boo waxee ñu ne la piment boo waxee ñu ne la promobile mais demal même yi nga xam ni les les routes latéritiques nga xam ni PIDC def na ko mais yoon yooyu avec l'hivernage yooyu yëpp yàqu na maanaam amul tey li nga xam ni tey en dehors des bourses de sécurité familiale yi muy jox waa àll bi mais amul tey tey la àll bi gën a mar yoon yi tey lañu gën a yàqu chômage bi tey l'exode rural tey boo demee si village yi après l'hivernage dafa fekk benn jeune ñëpp delluwaat nañu Dakar parce que Dakar dañu concentré lépp boo concentré de lépp mais forcément il y a l'exode rural l'exode rural c'est le mouvement des ruraux ban ville la ñuy dem mooy Dakar lépp la donc tey du ñu nee réew mi am na Macky Sall et puis il faut quand même que les apéristes là ça se xam nga bu ñu nee woy Macky après Macky Sall kan lañ gis moom rek moo mën a yor réew mi mais dañuy fàttali ni Macky Sall ministre Ablaye Wade la Ablaye Wade jóge na fi réew mi de su réew maa ne dox Macky Sall jawriñu président Idrissa Seck la woon ba mu nekkee premier ministre moom moo nekkoon ministre de l'intérieur Idrissa Seck donc est à tey bu ko yàlla joxee réew rek réew war na mun a am benn humilité xam ni après lui après le palais y a une vie et que après lui aussi Sénégal Sénégal jur na ay doom yu nga xam ne mun nañoo yor Sénégal si anam yu nga xam ne sax moom xalaatu ko loolu moom mooy modestie mooy humilité donc man damay jàpp ni troisième mandat bi euh, du mbirum constitution du tout mbirum nit ki la si boppam même bu fekkee. règle euh, en règle moom lépp lu ma la wax mënoo si jafandu mais je pense que dans cette règle am na une exception l' mooy que lu mu wax ni moom bii mooy son deuxième mandat si lay yem mais beneen bi mooy jàpp naa ni comme moom da doon woo patriotique bëgg na réew la patrie avant le parti war na mun a xalaat loolu ba nga xam ne réew du ko jëme si jéeg. alors mu mel ni euh, gis nañu leneen mais monsieur le maire euh, tey bi nga xam ne mooy ay naataangoo yu Macky Sall nga xam ne gis nañu ñoo xam ne tey dañu leen a

Euh, en température normale dans un contexte normal normalement kenn nu warul wax mandat mais actes yi nga xam ne moom lay posé yu ñuy gis mooy tax nit yi ci du ci xel ñaar maanaam ku wax si troisième mandat nga ne Macky Sall mënul def troisième mandat mu dàq la boo nee Macky Sall mën na def troisième mandat ñu félicité la mais loolu day day day day day day xel yow même bu fekkee ni yow président Macky Sall yaa ngi ni yow sa ñaareelu mandat ngay yem mais eh, ni ngay ba pare jël sa temps amul benn dauphin amul benn successeur ñë ñëpp dindi primature sànni fële ñëpp na mettre leen à carreau maa fi nekk man maay jur maay maay leen l'incontournable maay leen indispensable su ma demee seen le délice loolu moo tax ñu ngi jàpp ni xëy na comme créé na un vide autour de lui moom kese fa nekk parce que bu fa nekkul peut-être que le la paire la la coalition Benno Bokk Yaakaar va va euh, va vers alors mais naka ngeen di tontu ci li nga xam ne moom mooy euh, APRECI di wax ni euh, Macky Sall est un est un républicain puisque il a toujours suivi la constitution parce qu'en 2011 bi constitution validé troisième candidature Abdoulaye Wade moom dafa tëggu ànd bi dem campagne euh, ba réew mi mujj ci loxo. non xam nga bu ñu nee Macky Sall républicain la dañuy dañuy def ay reetaan dañuy def Macky Sall en tant que premier ministre moo woteloo un euh, Macky Sall boo nee ba moom boo nee c'est un républicain gis nañu nu mu doxalee justice bi tey parce que un républicain da ngay xool ndax justice am nat nattuwaay la pour nu mu yoree réew mi nu mu ci wàll yoon est-ce que Macky Sall nu mu yoree sa gouvernance euh, judiciaire est que tey euh, Sénégal yi tey boo ci laaj nga xam ne tey kumba am ndey kumba amul ndey la du lu nga xam ni moom lay wax ne woon na fi tey déjà juróomi at lay def def juróom-ñaari at donc bi. Euh, je crois que loolu muy wax loolu ça ça se limite uniquement sur mais lu ñu gis les actes que Macky le président Macky Sall pose il est aux antipodes de la de de républicain. alors euh, très bien beneen bi mooy euh, Talla Sylla di maire bu commune bu Thiès bu ville de Thiès di maire bu ville de Thiès defaat na audience publique muy onzième édition ginnaaw bi ñu ko tabbee mu nekk maire bu ville bu Thiès. alors ñenn ñi jàppe ni wàllu transparence la doxalinam da nga xamante ni day woo askan bi wax leen juróom-benn weer yi la mu ci def ak tamit lañ ci bëgg li en tant que way politique ngeen di ay jaraafu dëkk ci bu mel ni Thiès Nord naka nga koy jàngate. waaw xam nga déjà euh, maanaam rendre compte moom gestion bu nekk loolu rendre compte ñi nga xam ne loolu la fan loolu mënul nekk en soi quand même une mauvaise mais bu ñu jëlee le cas de Talla Euh, je crois que ces urgences publiques euh, maanaam franchement c'est de la comédie parce que li nga xam ne mooy àll kalim bi pratiquement di si wax boo demee audience publique yi dafa war a wax askan gi ñaata xaalis la yor xaalis boobu ñu ko woteel lan ak lan ak lan ak lan la si def yéen ñëpp bandi loolu mooy rendre compte parce que doo doo wax si ay audience publique way almaa yi may nañ ma appuyé nañ ma pour ma defar ma lutter contre euh, contre pratiquement euh, ma tàngaay de. de changement climatique changement ah, climatique. Mhm. wala dem defi may nañ ma ñaari ambulance wala la fexe naa ba ab euh, Macky Sall dugal ay lampadaire biir Thiès yooyu du lii mooy dañ laa jox budget budget bi tant de pré am na prévision am na déjà le budget bi nga xam ni exécuté mais loolu nga exécuté. nga xam ni c'est en dépense en recette moom nga war a leeral askan bi dama lay laaj ñeen audience yi audience yu ñu def est-ce que moom kàddoom day nekk uniquement sur le budget et sur le budget prévisionnel ak aussi li nga xam ni moom la jot a liggéey donc juróomi at yi nga xam ni moom lay def folklore lay def moo ma ñun nous allons prendre nos parce que déjà que collectivité locale ñaari organe la mooy organe exécutif ak organe délibérant moom moo l' organe exécutif mooy organe mooy exécuté dafa nekk li nga xam ni euh, pilier la si collectivité locale mais dé gis nañu ba mu toogee ba léegi l' organe délibérant pratiquement existé wul dans la mairie de ville. monsieur est-ce que mu doon convoqué gars yi euh, conseil yi di. Euh, non am nañ ci droit musuñoo musuñoo lii c'est-à-dire conseil municipal moo ko woteel budget 2016 ñu woteel ko budget mais 2016 2017 2019 pratiquement même deuxième deux deux mille dix neuf bu mu ni conseil ñoo ko woteel il a fabriqué une majorité pour ñu woteel ko mais mënu ko am. mais deux mille quinze deux mille seize boo gisee deux mille quinze ba ñu ko woteelee ñu xool ni kii day xabaabal prévision budgétaire am deux milliards te mënul weesu cinq cent millions. première année bi bañ ko ko waxee mu ni ma non a fait des efforts dina ko mën a recouvrer deuxième année bi mais deuxième année ba ñu bi gis nañu ni mënul weesu cinq cent millions. mais on a dit que ba mu indee boo tax ba mu bëggee indi en 2007 beneen budget buy nekk 2 milliards ñu ko lii duñ ko wate parce que mënoo faa egg parce que lii ay bor rek la lay loolu moo de parce que ñun aussi defuñu rek la politique de la siège vide comme ça noonu noonu dañ ko am fu leer fu ñu ko teg ba mu xoolee ba ñu ñëwee ñu ni ko da ngay wàññi budget bi budget bi il faut que mu nekk un budget réaliste mu bañ ah mu daal di bañ a wootati dem làqu ci préfet mu rek leen ko budget ñëwul sax wootewul sax pour ñu wote budget bi dafa demaat jébbal budget bi préfet ñu wote ñu defaraatal ko budget bi moom 2019 nee na woote na créé na benn majorité nee nañu watal nañ ko budget mais nan nga mën a def collectivité locale dafa am lu ñu doxee dañu ni chaque année au moins il faut nga tenir quatre sessions ordinaires waxuma la sax session extraordinaire mais moom vote du budget rek lay convoqué conseil bi 2015 ba 2019 amul benn ñun euh, la majorité bi nga xam ni des conseils yu fa nekk amul benn euh, dafa ñu vote du compte administratif maanaam compte administratif day retracer l' exécution de lépp nga xam fan la xaalis dugg mais man ma gën a jaaxal ci gestion xaalis si les fonds yu nga xam ni da koy jot de l' état te loolu war na mun a am acceptation du conseil municipal mu am autorisation parce que lii lépp lu nga xam ni budget bi prévoir mu war a dugg ci dafay. Euh, ga gafay gafay mairie bi mais dañ ko war a accepter dañ ko war a autoriser le pour mu exécuter ko man les fonds de dotation yu may jot ak fonds de concours yi mais mënu moo ko exécuter tant que aw ma autorisation sama conseil municipal mais Talla la mais musul les fonds de dotation les fonds de concours yu may jot mais amul autorisation amul acceptation du conseil am ko mais beneen bi même appui budgétaire bi nga ni woon mu lijjanti na ko Macky Sall xaw ma mu nekk ay cent millions mais conseil bi kenn loolu lan la demee. moo ko exécuté ba mu jeex mais dans ce contexte là est ce que ñun dañuy accepter nekk quelqu'un bi nga xam ni c'est dafa ñëw lu muy gëmloo askan gi c'est c'est un démocrate dafa bëgg mu leer te ñun ñu nga xam ni moom la askan gi tànn pour ñu toogal ko fa pour saytul ko alal réew mi defal def ko ay délibération fonk ñu faalewuñu def lu ko neex parfois mu organiser ay audience forêt euh, ay audience publique def di show maanaam li nga xam ne mooy en calibre bi du ci wax dem ay ay ay ay géwél ba di ñu tàggal ko loolu je pense que il faut quand même qu'il soit sérieux moo tax damay wax ni léegi il laa convoqué bon débat d'orientation bi amul njëriñ suba la je crois que ñun amul amul lu ñu solo mais lu ñu amal solo mooy 3 décembre bi nga xam ne dafa war a bi budget dinañ ci jël matuwaay yi nga xam ni xam nga bu ñu ñëwul les conseils de réew mi bu ñu convoqué te ñun sax. bu ñu chaque fois bu ñu jotee convocation mu mu mu ñu wóor ni ne war war nañoo dem teewal fa askan bi dinañu dem boo tax le incha allah nous serons présents si salle jël suñuy matuwaay li nga xam moom la jot def parce que moom yi nga maire genre xale bu nay mbooyee la rek li ñuy wax ndaal bi conseil bi ci ndaal mooy munul dem munul munul lu mu mënti def il a besoin du conseil municipal. donc fekk fu mu mën a def ak lu ñu ko mën a defal dina ñëwaat ci conseil municipal te foofu lañ koy xaar donc le 3 décembre qu'il ne se lie lépp son budget là mënuñu mënu 2020 bi mënul de le budget de 2020 koo am tant que leeral lu li nga xam ne lépp moo fi jot a loolu bu amul du xalaat sax am budget 2020 léegi nag comme moom damit comme moom il a en complicité avec bon avec le pouvoir Euh, li nga xam ne moom mooy la loi dañ koy fule au pied defal ko lu ko neex maanaam euh, conseil municipal bi mu dund ak mu dee yoonam néew si l'essentiel am na am na am na am na daal l'administration territoriale qui est là lu mu bëgg ñu defal ko ko bu paree mu dem foofu mais le conseil municipal va prendre ses responsabilités xamal ko ni yow comme yow ba lu ngay wax ci biti pour leeral nekkul ci yow en réalité dans le conseil municipal ñu jël suñu matuwaay ba ma sëkk ba nga xam ni moom dina xam ni conseil municipal bu Thiès ville am nañu ful ak fayda pour jàkkaarloog moom. mu abrité seen siège dafa leen ko artistes yi li ni mel en tant que Thiessois mais kon ci mouvement navétane dafa koy apprécier. xam nga loolu loolu bu ko waxee sax fan la koy am Thiès amul suuf xam nga yooyu waxu wax kasa waxu sa kandang la man da xam nga d'abord man de damay wax ni man dama koy wax fii lépp lu nga xam ni compétence la bu commune Thiès man dinaa ko exercer totalement du ma nangu ki nga xam ni amul compétence si dara mu bëgg fa ñëw suruxlu xam nga le foncier bu ñu waxantee dëgg Talla Sylla dasee amul benn compétence ba si war a prononcé wu wala du dem du lënkoo du du jéem a convaincre ay préfet ay do ay domaine pour ne man la c'est-à-dire dañoo am arrêté de dévolution bu leer mi ne leen carrément les le foncier c'est les communes et dans tout le même dans les communes bu la dans les villes les communes qui exercent ah le foncier donc moom amul lu muy xam nga ko na fi ñëwoon na fi wax seen keesuwaay yi na ngeen déposer ay këyit yóbbu mairie dinañ leen may terrain nañ leen laaj keesuwaay yooyu ñu déposer woon demande de parcelle est que am nañu parcelle parce que dañ caaxaan. day jaaxal am na lu nga xam ne du moom moo ko moom du war am na ci compétence tey bu leen nee wax parce que j'aurais bien voulu que muy ODCAV ak muy lépp ku nekk am siège yu def nii loolu c'est une bonne chose mais du taala si la koy def amul compétence bi je suis désolé mais amul compétence bi bu ko jéemee aussi dafa def man je prendrai toutes mes responsabilités dans ce domaine là euh, gis naa j'ai les documents parce que le lotissement de Thiapong bi nga xam ni dafa amul blocage. ñu daal di dem ba si biir. Euh, l'honorable député euh, créer collectif des des des exploitants des terres. ñu pour ñu jàppale leen parce que y avait la clôture du mille euh, cimetière catholique bu ñu waroon def te ñooñu foofu ñu foofu ñu waroon def clôture bi amoon na ay tool yu nga xam ne seen borom dañ leen waroon dédommagé ba ñu ñëwee comme l'honorable député moo doon piloté ñun maire yi ma ne ko loolu de ñun ci suñu si inconvénient demal ñu régulariser mais. on a reçu tous les documents ministre de l'urbanisme lu mu leen tontu ba ñuy di ba weccee weccante ay bataaxal mais ministre de l'urbanisme dafa ni ça c'est le lotissement au profit de la commune de Thiès Nord lettre yi mu leen bind ampliation bi ville bokk si mairie Thiès Nord la mais c'est après le coup mais man lu si jàppoon mooy dañoo ñun commune Thiès jàppoon na ni comme euh, le cimetière des catholiques était en donc bu ñu fa dugaloon suñu bool suñu làmmiñ dañuy wax ni wéy dañuy xeex li donc c'était trop sensible moo tax ñu bàyyi l'honorable député pilote ko mais à part ça sama commune je vais exercer pleinement mes compétences dans tous les domaines te du du mbindeefu taal si la moom ko mën a xay bien vrai que la am na euh, il est toujours dans des complots dans des dans des dans au sommet de l'État pour que li nga xam ni bépp projet bi nga xam ni mairie commune yi am nañ ko mu jëm cee xëpp suuf mais nag il va le trouver sur sur sur euh, sur son chemin. alors euh, très bien mais tey taxawaay bi lan lay doon diggante rek euh, débat d'orientation budgétaire bi ak vote budget bi mais yéen également monsieur le maire Thiès Nord tey li ñuy wax audience publique ñëpp di ko wax ñu ne sax Aly Ngouille Ndiaye ministre de l'intérieur royoon ko ci ba Linguère def na ko fa. waaw xam nga man def naa ko benn yoon parce que nattukaay la rek. parce que déjà ñun dañ koy def mais d'une forme très responsable mooy man musuma woote sama budget te woote mu forum man damay woote forum mais c'est à l'ancienne si biir mairie bi la salle de délibération woo les conseils de quartier woo les associations de femmes les associations de jeunes woo tous les services de l'État ñu ñëw fekkee ñu wax leen carrément suñu suñu suñu suñu man-man ak lu ñu yéene ñoom ñëpp ñu waxtaan ñu def donc ñoom dañu xam xam nañu c'est donc suñu budget c'est toujours un budget participatif et chaque fois dañ leen di rendre compte donc j'ai eu à organiser une grande audience publique bi nga xam ni c'est toute la population de Thiès Nord ñoo génnoon ñu defal leen audience publique mais xam nga dafa amul nga xam ni euh, jarul sax wax xam nga boo nee maire Talla bu nee def naa na wax Thiès lañ ko dénk na wax lan nga def man la maire Lamine Diallo jarul may génn la yi di wax lu ma def Thiès waaye bu ñu doxee danañu gis li nga xam ne gisuñu ko woon ñu ne ah lii bi moo ko fi def kay loolu am solo donc ñun suñu audience publique ce sont nos réalisations en contact avec nos administrés loolu mooy suñu suñu suñu audience publique mais bu tee aussi à chaque fois que de besoin ñu ngi rendre compte euh, les populations d'ailleurs dañ ko ñu ngi jóge ci débat d'orientation suñu suñuy priorité 2020 mooy en dehors de l' aménagement bi nga xam ni on va le pavage la route nationale bu nekk donc c' est de 60 millions on va faire une extension de 22 millions dinañu defar euh, am na l' éclairage public c' est priorité dinañu jéem aussi am nañu ay espaces verts yu nga xam ni di cible nañ ko ñu dañ ko war a delluwaat mais également la gestion des ordures parce que dañu see interpellé c' est vrai marché bi y' a yooyu bi nga xam ne dafay teg deux pattes mais doyul donc. am nañ fa suñu équipe dinañu wut le petit matériel brûlant pour que au moins au niveau du marché central gestion des ordures nekk au mauvais souvenir et même bu ñu mënee on de voir avec un partenaire pour ñu gën ñu jàppale dans les quartiers pour ñu mun a rey euh, mën a réussir la collecte des ordures à un site dinañ ko trouver pour aménager ko pour foofu nekk le dépôt d'ordures bi nga xam ni lu ñu bëgg sax mooy foofu am euh, un début de traitement de ces ordures. alors euh, très waa message bi rek mooy que ñu gën a ñu gën a jàpp parce que defe naa ni le parti Rewmi au niveau de Thiès c'est un parti très fort donc Thiès waaye ba fu ñu fu ñu jàppoon ba léegi je dis que c'est c'est c'est très rare nga gis un homme politique bi nga xam ne day perte pouvoir 15 ans après toujours mu conserver sa sa base loolu nag Thiès waaye dañoo gis si Idrissa nit ki nga xam ni euh, lu mu leen defal beneen homme politique deful moo tax parfois sax. da ngay gis yenn yenn ndeysaan yenn ji yenn candidat yi déclaré man leen noppalu leen donc xam na temps yi maa ngi gis sama xarit euh, kii laa ku dama yore Doumbouya dama yore Thiès info Thiès Thiès Thiès précise mu yëngatu mais dañ koy wax rek na noppalu parce que xam nga ci politique dafa metti donc laa ku dem si yàlla Mamadou Dieng nga xam ni amoon jaar-jaar bu am solo amoon ancrage sociologique à Médina Fall teewul 3800 voix la am dans la commune Thiès Nord donc ñi keneen ku ñuy jéem a nax nga nga entouré de l'orateur ñu lay jéem a nax ne mën nga dara si si si lii parce que ñun au niveau de Thiès am na nañu trois ZAP yu nga xam ne benn parti amul mooy le leadership de Idrissa d'abord à Thiès amul beneen parti bu ko am parce que beneen parti amul leadership bu mel ni Idrissa Seck deuxièmement mooy ñu ñun ñoo contrôler les collectivités locales te mu néew ko bëri population yi am nañu nga xam ni kontaan nañ ci te je crois que c'est la majorité ñaareel bi mooy aussi on a un appareil politique une machine électorale bi nga xam ni tey bu ñu ñëwoon suba la élection pare nañu mm, déjà ñun pare nañu pour les dix neuf centres cent neuf bureaux de vote ñu xool nan lañ koy raafale donc bokkul ak ñeneen ñi nga xam ni ay maire maire maire ngemba wala toog ba mu neex la seet xool sa kanam nga ne da ngaa bëgg nekk maire dafay yomb lool. très bien ñu lay jaajëfal monsieur le maire euh, Lamine Diallo di maire